inwul ki mu mhm. justifié ay affaire yu bëri mais Pape Thiaw daal ñoo ngi seetlu ni daal moom daal benn am na ñu ne wax sax ni fédération bi moom moo koy euh, moom dañ ko fi teg nii rek pour teg ko fi nii rek doxalul dara que fédération bi ñoom ñoo koy proposé ñu gis ni daal mu ngi daw presse bi parce que liste bi bi mu koy génnee woowul journaliste yi woowul la wax waaw c'est que xam nga dëgg Pape Thiaw ba nga ko remercié bu baax xam nga nit ki tamit boo jot dara doo sëkk mhm. xam nga kenn ku nekk rek sa gis-gis ak sa biir xol mhm. Pape Thiaw bu dee ba créé ay bagages am jiite sa génne benn liggéeyam wóolu benn presse loolu moom la soulagé wu moom moo ko gérer boppam quoi moom moom. soit que moo diggante moom ak Aliou Cissé. Aliou Cissé def na lu mu fi war a def Sénégal am nangu nañu kat def na fi. ba yaay mu du fay. kon moom moom tamit Pape Thiaw tamit dafa war a xar tànk tuba yëpp. ba teg loo xam ne Sénégal ñuy dégg ak lu ñuy gis la. ba dégg daani xëy fay indiwaat victoire bi fii Sénégal fii. Mhm. kon nañu ko jàppale rek ñu ñaan ko yàlla liggéey bi yokku man loolu laa gis. waa fédération bi yëpp bu ñu ñëw Aliou Cissé lañ gën a mii nag nangam seen nañ bi ay yooyu mhm. yàlla moo ko fi jëlee jëlee na ko waxtaan nañ indi nañ ko fi nañ ko pousse ñu bañ a def yeen yeen affaire yu bon yeeg ak ah, affaire yu ñaaw yi mhm. ndax Sénégal ñun ñun ñun ñëpp ñoo ko bokk mhm. bu Sénégal gagné Sénégal bi ñu xam ne Sénégal gagné la waaye bu ñàkkee nañ ñëpp lañ xam ne ñàkk nañ kon boog nañu ko ñaanal yàlla mu yokk réussir yaa ne Pape Thiaw bi vraiment man moom tamit ku baax la gis naa kanam mu xam naa ni mu xam ku am fula la ku yàgg am fula la nag xam loolu day am si nit te équipe bi am na fu ñu ko teg ndaxte nekkul équipe Sénégal mënoo tëb tëb rek jóge fee rek ñu ne la kaay ñu la équipe nationale loolu mënu nekk tey Pape Thiaw bu ñu tey ba fédération bi ak lu président bi ki ñu euh, euh, mhm. moom la mhm. liir na ay la dafa liir ay ne ko kat Pape Thiaw mi ko si gunge hmm. ko si gunge gunge tamit suñu président CNG mais moom intérimaire la rek maanaam dañ ko fi teg a gum nii en attendant non teg gum noonu ki na dem ba bu ñu ba indi coupe la ko indi coupe mais moom dafa xaw a ragal tuuti non non amul ragal de yàgg na mm. yàgg na ànd ànd ak équipe nationale man sama gis-gisu bopp yàgg na ànd ak équipe nationale bu Sénégal mais moom bi muy daan ànd ak équipe nationale daawul woon fësal boppam ci ginnaaw rek la daan non non c'est que c'est que xam ne di nga dugg si kër gis koo xam day cool mm-hmm. nga gis nga dugg si kër gis koo xam day jalgati rek comme man comme comme yaaw jaare ku gis yaaw jaare moom mm-hmm. dootoo ngeen comme noonu la fen xam na nga dugg si équipe gis koo xam ne kii corxo corxo la xool El Hadj Diouf mm-hmm. El Hadj Diouf da leen ne par force may dugal te noonu fay doxalee kooku sañ-sañam la ak bëggam. mais da ngeen koo xam ne ndeysaan dafa cool bëgg yéen affaire yi. Mhm. parce que loolu day xam loolu day am. si yow kon yow si je comprends bien yow maanaam yow. kon yow gëm nga gëm nga ne Pape Thiaw. Mhm. war na mën a yóbbu équipe bi. ba jël coupe bi indi ko fii. coupe du monde ba pare indi ji. indi ko fii Sénégal fii dafa yàgg ànd ak gars yi di football. xam nga mën nga dugg si kër. waaw gis grand boo xam day cool. Mhm. nga dugg si kër gis koo xam ku mel ni yaawu jàll day animé di mbala di sànni xeer. mais nañ ko nangul yàlla xoolal baaraam yi est-ce que dafa yem gisuma ne tey nii mën nañ ah? mën nañ jël keneen uh-huh. indi ko uh-huh. ah uh-huh. Pape Thiaw nekk ci wetam quoi non non ah man de xam naa xanaa xam naa ne par exemple hmm. man moom xam nga su ma waxee rek xam su ma communication day garaaw quoi ndax du ma def lu bon lu ma def mais xam nga classé eh, El Hadj Diouf yi non balaa ñuy ñëw sax ah, ci kër kan kan mun nañu mooy mooy ñëw rek utu si ko ah. ñu wax ci nu muy dawee presse ba léegi yow gisoo ni dafa war a jël responsabilité am voilà voilà voilà xam nga tey xam nga tey jël sa responsable waaw xam nga classe Alassane Ndour yi waaw am nañ fulla am nañ fayda boo xam ne ñoom tamit daal ay ancien lañ sa équipe bi mhm. ñooñ foog na ni këcc di jege ak ñoom di leen laaj seen xalaat te ñoom bu ñu tegee liste rek liste boobu day réussir ndaxte dañ koo jàng dëgg la xam ABCD mhm. boo ko jàng doo ko tari de mhm. doo tëb tëb ñu la kaay kaay kii de dañu la koy jàngal ba nga man boo mënee nag boo liiree gars y a 20 jours yi nga xool mhm. di ne kii kat moo war a pointé fii a pointé fii a pointé Il y a fu classe élage asim enré yeegi yooyu alu ak ñu alsan Il y a affaire kon yow hein? si je comprends yow sans la sans sans bëre bi ah. yow kon football da nga ci am xam-xam ni football naa ba damm si football day for fii Il hmm? c'est A yaraax da qui ont football deux mille deux barke salaatul faatiha wër na Seydina Mohamed ba wër na kon yow yaaw kon sama tànk bi boo ko gisee rek xam ne yaaw déet yaaw déet wàcce tànk bi xam ne football na wàcce tànk bi wàcce tànk bi kasanka bu yaa ak kasanka bu jara nga ne dum tudd kasanka kasanka ak jàppo ak jàppo ak mbaxal ak mbaxal en trois en trois cité cité Elisabeth Diouf waaw kaddu gi montagne 6 AIC Dalifort xam naa ko xaw ma ko yow yow ñu football na oh maanaam dama ko carrière yow yow yow lan mooy sa lan mooy sa poste par force may dugal ailier laa war léeg-léeg ma samp neuf ailier barke sëñ dama Dalifort laajte kan mooy yaaw mais kon yow yaaw si

mais man kii bi ma xoolee man yaaw jàpp man ay 22 euh, 25 ah. ah tamit yaaw ñun ñu jur ñu toog ci taal bi ngeen def 22 ans. non non mais yaaw ñi xanaa xamuñu ne. Ah, ak maa mën a fubal. ah ak maa mën a fubal. yow mën nga tëg dënn mbëkk ko yëkkatee. xam ko équipe nationale tey mënu ma woon mënu ba gis si si làmb ndax dama amul tur fale nga si benn sport. mais bi nga football bi nga football ban nan la doon tuddee. non xam man kuku lu ñu doon wooyee ko mais maa ngi dugg jour gis jour bu tudd kuku. kon yow maanaam ah, bu àdduna kii yow bu ñu lay woo. dañu naan dañu naan kuku man la ñu wooyee kuku maa kuku. ah <laughs> dafa garaaw quoi c'est boo gisoon tey waa Irak yi tey waaw kooku ma sax dalifa xam dalifa fa laa màggee faa judd mën nga gis koo xam daf maa xam sax mu wax la ba wax la loo xam ne sax mm. xolam day sedd mais dugal Irak rek nga ne leen kat yaawu jaal waaw si football Dalifort. waaw wala si ay Dalifort. mais man am naa sama benn copain. waaw Papi Gueye la tudd. ñu naan kan Prato. waaw mais moom nee yaay mbërëm. Ah, oh, ba nekk mbërëm. boo koy Prato Papi Gueye. mais euh, de sa euh, Papi Gueye. non non il faut nga non il faut nga big euh, na yaay mbërëm. ci àdduna. Papi. waaw am na mbër nag. non non am jom. waaw man tey fekkoon tey ma diisoon comme que ma état wu cent vingt kilos cent trente kilos kenn waxatu ko. ba pare moom futur futur futur promoteur bu rëy la de. ah kon boog war war naa. gëm yow premier combat am yaa koy bëri. incha allah te yàlla si yàlla yow yow nan moo dara ci diis di. <laughs> sant yàlla sant noonu noonu la fi demee nan na ma. waaw te maa ngi koy ñaanal yàlla yokku mu am wér gudd fan ak ay njabootam. Mhm. Sénégal yëpp lu ñu dal coopération xam na nitu ñu bañ maa xiiroo bañ maa ñaayoo réew mi ñu ko fi yàlla jox yàlla ma leen ko jox mais man jàppale man Pape Thiaw li ma si Pape Thiaw li ma gis si war na mën a mm-hmm. ah, comme li ngeen wax gëm boppam quoi mm-hmm. parce que gëm naa ni gëm sa bopp tam moo tax mm-hmm. nga war a mën a indi ndam quoi dëgg la doo toog tamit tok parfois rek ñu lay indiquer wala dila wax ne la defal li defal lii defal li mhm. wala wa ilaa ñu nit ko ko xamne da koy secondé comme comme actuellement ni xamna boy min miin len ba pare yag na liggéey ak ñom <laughs> yag na nekk ci yëf yi. ba mhm. pare tamit bo xolé pap Thiaw mo fi yoron U euh, mo fi yoron ki la U20 je pense U20 moo leen yoroon. U17. voilà je sais pas. Ah. wala U17 wala wala U99 la yoron mo U99. ça dépend rek hein, ah, waaw waaw ñu ñëpp góorgóorlu ba am mhm. ndam fofu tay ñëw équipe nationale tay bo xolé pap Thiaw tay war na mëna gëm boppam dem indi fi li nga xam ne Aliou Cissé indi woon na ko résultat. Mhm. dem indi ci coupe d' Afrique bi fi xam nga qualifié coupe du monde. Mhm. ñu gérer ah, accompagner ko. am na ko fi wàcceewoon benn ASC boo xoolee lii yaa wax dëgg la il faut ñu accompagner. balaa ngay ah. continuer ma ne. Mm. am na ko fi wàcceewoon benn ASC. Mm. ban ASC eh, loolu Covid bi la woon nee ah, benn ASC. ñaari ah, waaw waaw waaw il paraît ASC bu da ko wàccee moom ñaari yoon la wàccee ASC. Ah, ñaari tali kon moom la. ah non man damay laajte. non damay laajte non man damay laajte. naa gis yenn gars yi moom du waxtaan ak moom. yow jàpp nga ni Pape Thiaw mën. day am mën day am ndam yow jàpp nga la gis man man man li ma gis. non man li ma gis man. waaw man li ma gis. man je préfère tey ñu contacter ku ci ni Omar Daaf waaw waaw Omar Daf waaw waaw waaw. comme ñoom mais pourquoi pas duo Omar Daf et Pape Thiaw. waaw mais yoon la. ah comme si comme Aliou Cissé ak moom ñoom ñu ñu dee woon. waaw tey ñu indi Omar Daf ak Pape Thiaw. dëgg la loolu yoon loolu yoon la loolu yoon la. Omar Daf fi ñuy defaree carte d'identité lay wax. Daf Daf carte d'identité waaw waaw waaw mais bu leen fàtte Daf boobu. au moins daaw 2002. te mu nekkoon bu ñu aari ah. eh, eh, xam na football. ah indi ah xaaral ma ñëw la 86. waaw ah Omar Gueye ah. moom mooy doomu roi mooy mooy papay roi Sané bi nekk Bayern. roi Sané yaa ko daaxoon football. non ah en tout cas mën naa man. mais yow man affaire mën naa football am nga vidéo booy footballé yow non non ah, non waa Dalifort yi am nañ ko moom. ah waa Dalifort Dalifort am nañ ko moom. yow fan nga doon football nga ni. non man ASC Dalifort laa doon football. ASC Dalifort waaw ASC Dalifort xam nga nag Dalifort xam non non déglu ma man. non Dalifort xam naa leen de. xaaral ma xaaral dinaa laajte waa Dalifort yow lan nga fa doon ji. <laughs> ah dëgg xool waaw non loolu cee Dalifort mais Elie la woon Elie. Elie <laughs> laa woon <laughs> ba pare dama point dama doon point neuf. ah ginnaaw man su ma waxul woon tam ba ñu kat sama tànk ne leen footballeur laa woon. nee na tànk bi di ko wàcce da ngeen maa wax suñu sàpp man. waaw tànk moom di ko wàcce. mais dinaa wax suñu sàpp dama ne sama ne ba ñu kat tànk rek. waaw ah, mais li ma gis nii sa tànk bi mais yow xanaa yow yow da nga doon damm di damm di damm rek par force may dugal. mais ñaata dama nga dama. fu tànk lay xajam. sérieux barke sëñ Bamba du mais da mën duru sa genre Adebayor dafa attan boppam dafa attan boppam waaw nga xam man nag xam nga Adebayor non non dëgg ba xam man nag tey équipe nationale bu Sénégal football waaw ma dama sera football ah. ah lu tax loolu sama doom ñu tuddi Abdoulaye Wade moom kooku moom moo surveillé football mm. kooku ah. macha Allah quoi Abdoulaye Wade kooku mu ñaanal lam fi ñu toll essence bi war na am 13 ans. non non ay 16 ans non kooku président Bakary da koy jënd. waaw barke Sëñ Fall président Bakary da koy jënd mu nekk neuf ñaari FC. non eh, xëy na mënu maa def si foofu nag. dama ah. ne gars yi di ko laam-laamee koñ ba foofu mu ne non laay mënu maa doon suuf. man daal fi ñu toll nii man fi ñu toll nii man pare naa pour utal la benn club boo xam ne. ah club yow boo bëggee pare mm-hmm. yow mosoo def jugement non mosuma def jugement. yow ñaata at nga man de taxaw naa pour defaral a jugement. non non yaa ngi foofu non non non non. sama doon doon yow yow ban yow yow tu es de quelle année tu bon moi je suis le Senghor. non yooyu. je suis le fekkee. waaw mais non wax nga wax nga âge bi de. ban année nga sonal onze nga wala nee non non non mois de fekkee. xam nga nguuru Senghor bi mooy peut-être ay Nevers la yooyu noonu. waaw kii a kale moom Serigne Abdoulaye Wade la xàmmee yow daf la bëgg a yóbbu. club bu Sadio Mané bu daf la bëgg a yóbbu foofu nga football. non yow yow yow nga ne mën nga yëkkati club yow eh, mën nga yóbbu eh. club bi yow deuxième division ma dama ne par force may dugal Franc loolu laa gën a dee moom neen day dugal par force may dugal lu mënta xew damay dugal man bu may xale ak bu may fowal na laa ne man par force lu mënta xew mm-hmm. damay dugal waaw ah, non yow mënoo football waay laa il waaw ah, loolu dama ko tax mais xoolal xoolal tànk yaaw yi kii yaaw vraiment du ma la bàyyi uy ma non du ma bàyyi yaaw toog naa mën na football waay yaaw lamb laa xam xoolal doo oh. eh, mën nga football mën nga football yow. waaw yow lii la ay rasta. ay rasta war ma ko génnee tamit ak sa bopp. yow rasta yi dafa rafet da laa jàpp. non non rasta yi ay nga man rasta yi dama comprendre mais rasta yi. mais dama kan ni nga mbëkkee bal voilà gis ma tiimee waaw ku si jaarul. waaw doo ko def de. doo ko def non lii mënu mënu ma ko sax. ah, ah, oh. ah, ah. xolal ba may dom barke Seydina Mohamed waaw militaire laa toll ñi laa dugalee bal nan nga dugal nga ni waaw li oh. xam nga li tax ngay dam bal dafa jóg xam tax ngay dam ni mu ànd ak moom taaxaloo ba waaw li xam tax ngay dam ni parce que ni nga tëddee te juma laa demee non yow yow da nga dam boole boole jàmm amaana ci articulation non mais dafa am feeling dafa am feeling yow da yow dafa am feeling c'est que loo bàyyi mu bàyyi rek non gëree waaye te boo doon digoon Dalifort bi waaw non man dinaa ñëw Dalifort laaj waaw maa ñëw Dalifort laaj yaa dem nafu bi ne kooku équipe bi dafa daan gagné par force ak lu mënta xew maanaam moo tax El Hadj Diouf kon yow métti métti da nga ko naan oh, liggéey moo tax voilà moo tax El Hadj Diouf ak Pape Thiaw moo tax El Hadj Diouf mi comme dafa am sañ-sañ dañ ko war a indi équipe nationale non Diouf El Hadj Diouf c'est le meilleur wax kii baay oh c'est le meilleur ceecee dafa am c'est le meilleur ceecee dafa am waaw ceecee mais nag mais nag mais nag am nañ koo xam ne ci àdduna kenn du ko mës a fàtte muy kan mooy l'homme de Bambali waa Sadio ñëw oh. Sida Sadio Mané. il est très dangereux. est-ce que xam nga Sadio Mané. xam nga Sadio Mané mais yow Sadio Mané yéen club la jaar yéen club. non non Sadio non non waaye yéen club la jaar. non Sadio Mané moom jaar na fépp. ah non non France non dama Europe Europe fan la jaar yéen club. waaw dama ne jaar na fépp. ah xam nga club boobu noonu. dama ne ah. te en tout cas toj na fépp. Southampton. Sadio Mané waxal club boobu Southampton. ah saa sa mënu ma tër. Angleterre ah, nu ma xaw a tëj. waaw ba pare mu laal Bayern. waaw waaw waaw Liverpool. waaw actuellement fan lay football fan lay football. non il faut nga wax man Sadio fu muy football. non non non. vocal na ah, ah. vocal na sa ah, vocal na. mais <laughs> jàmbaar la xam nga def na loo xam ne lu yéeme la. Mm. tey mën nga nekk si dëkk. Mm-hmm. juddoo si dëkk yaroo si dëkk màggee si dëkk. Mm-hmm. nga dem ba dafa créé loo ay hôpital ay dispensaire ay école. vraiment kii yàlla ko yàlla ñu. tax tax dëkk ba lamb te nag bul yaakaar ne bul yaakaar ne bambara rek la yem de. non fépp. waaye nag rawatina Sénégal. waaw ah. xam nga genre yu mel nii dañu leen war a takk seen bakkan. waaw ah. tey bu dee yàlla dimbale ba nga dem bitim de milliards. Mhm. <clears throat> boo ñu investir ay mhm. ko mhm. ak ay hôpital. loolu day suuxal euh, day neexal dëkk. day neexal dëkk waaw mais bu dee da ngay am rek investir nga xëy xëy yàlla tere yaa tere nga xëy ñu ana alal ba. loolu musiba la. mais tey boo créé fi benn école bu mag. Mhm. dafa euh, benn centre pour football. soo ko bayee Sadio Mané. waaw non jàmbaar boo tax mhm. keroog mu nee cëpp si ay départ. keroog mhm. mu nee cëpp ay départ. bu mu nee cëpp yem si man. nii la nee cëpp ne ma yow Kuba nekk ni zéro. jox la jox kub bi. parce que saa bi fàttee. yëkkati ko fóon ko gauche droite. Oh. mu xam ne der laa. der moon dem. du ma gis ne ma yow. non xam nga yow nag yow du ma nekk yow. waaw yow da nga a yow yow yow yow hmm? yow à part arrêt boobu war a am monument yaawu jaar. waaw man li ma a am monument yaawu jaar. de non parce que kii kii du n'importe qui. yaawu jaar du n'importe mais surtout sànq da nga benn joueur muy El Hadj Diouf. waaw. est ce que xam nga yow El Hadj da ngeen niroo caay ba parce que saa fi fàttee. lu ma am sa àdduna bi ma kan jayu jayu ma la alquraan karim bu Seydina Mohamed mais nan ngay man sama jaay tay ak sama fit non bu ko jaay dan la waay non sama tan non jayu ma ko lan la bokkee jaay lan la bokkee jaay jaay dama mën fubal El Hadj moo dàq fubal non mën fubal yow mën nga tëbal yow mën nga tëbal kan yow mën nga songale bal man su ma neexee am na sama benn grand boo xam non waxuma la grand yow mën nga songale bal yow ñu ko mën a songale yow ñaata nga koy demal nii nii taxaw.